temps yi ñu ngi wax criminalisation homosexualité ñu ngi indi ay coow ak yooyu noonu lan sa avis si loolu lan la. non mais pour dañ ko war bu baax kay. ak li fi xew dañ ko war a criminaliser bu baax a baax a baax a baax gis nga pa oustaz yi demoon ci <laughs> audience Macky Sall bi dañoo doon wax lu leer président ne ko dañu ñëw pour nga tontu ñu leer da nga koy criminaliser wala criminaliser woo criminaliser woo ko xam nga criminaliser. Mhm. góor jigéen yàlla moo ne yéen góor ñi jigéen ñi laa leen dénk. yéen jigéen ñi sëy leen ak góor ñi kon lii lislaam santaane bu xam dafa amee ñoo xam ne yàlla nañu taxawal ci suuf ñoom ñoo war a njëkk xeex loolu ñun jaam yi nga xam ne ëllëg yàlla ñoom la ñuy laaj ñoom imaam yi nan ngeen nekkee woon ak taa eh, eh, jaamu yàlla yi ci xubba yeeg yooyu góor jigéen du mësa bu buñ ko légaliser fii ci àddina buñ demee àllaaxira ñu ko fi légaliser lépp dañ am la mais duñ ko dul nangu parce que góor bu bëggul jigéen bëggu góor on doit les démasquer xàmme leen génne leen société bi parce que ñu ngi commencé yàq di def loo xam ne vraiment dañuy indi ay pervers ci jumaa néegu yàlla loolu mooy maanaam bu ñu ko bàyyee nii bu yàggee tamit dafay gën a ëpp day day ëpp loxo dañ ko war a criminaliser benn yoon mu féete boor képp kuy njiit da nga war a taxaw ne man lii ànduma ci tey ànduma ci ëllëg sama culture ak sama religion mayu ma ko et eh, arrêté sa problème voté nañ ko assemblée ku ko fi def dañu lay tëj à vie war a ñu génn la ci dëkk bi nga dem dafee ko feneen mais pas Sénégal criminalisé war a rek ñu mais comme que comme que mais comme que Karim Wade moo moom la ñu jiiñ ay sàcc détournement ñu génne ko ci réew mi te sañu fi teg tànk ak suma góor bu ñu la jàppee ngay góor jigéen nag waxuma la sax génn dañ la war a ki toxal ci zone Afrique bi yëpp nga dem dëkk fu la neex too fi teg tànk waaw mais góor jigéen moo gën a garaaw sàcc téeméeri junni yoon <laughs> parce que euh, wax dëgg yàlla dafa setul sax dafa dafa rafetul waaw dafa rafetul l'homme comprend trois parties la tête le tronc et les kay membre bu nekk am na ak fu mu war a a jëm waaye y a des choses yoo xam ne munoo correct sancté rafet ba pare bëgg koo def affaire dafa ñaaw. pour yow état bi fermul. bu ferm kon yow jaame bu ferme boo xam ne da am fulla ak fayda ne eh lii kenn du ko nangu ko ko fi def dañu lay génne dootoo fi duggati waruñu tëj la ci kaso dootoo génnati. pour man sax génn la ci dëkk bi moo gën parce que mën nga nekk ci koso bi sax créer ay yeneen pervers ci biir dañ la war a génne dañ la war a génne nga génn ci réew mi loolu moom amul sax ay ma dem ma ñëw tey loolu. dafa rafetul yaakaaroo tamit projet de loi boobu noonu taxul moo gën a yàqal euh, Macky Sall. non non man ne loolu yàqal Macky Sall. Hmm. Macky Sall bu fekkee ne loolu yaakaar sax ne moom kon dafa war a taxaw carrément parce que man dégguma benn yoon ci campagne waa Yewwi ñuy campagner euh, bi dafa da wax dëgg ah ma jot dégg hmm. dégguma ko fenn. Hmm. ñoom li leen yàqal mooy séparation bi dañoo ñu ànd dañoo ñaaroo mu leen yàqal mais ku jiiñ ne opposition bi da nga leen a taxé politique loolu kon yaa ngi daanu parce que yow boo leen buñ la ko waxee waa léegi législa législative yaa ngi ñëw waa léegi na comme que dañuy dem ci campagne législative balaa loolu di am waxal ne carrément man damay criminaliser loolu mu jeex mu féete boor imam yi nga xam ne dañu leen yónni woon tamit ñu dem ils ont des comptes à nous parce que ils sont ne ah wax nañ diw nee na lii mais je pense pas que ne man dégg na loo xam ne peut-être man dal na sama xelam dégg waaw mais góor jigéen moom war ñu ko waxtaanee fenn ba ci xam lam laame naan ay léeg la la yàlla moo ko wax yàlla moo ko bind l'islam reconnaître ko bible bi reconnaître ko amul benn religion au Sénégal boo xam ne te ñaar ñoo fi am muy musulman et chrétien yoo xam ne dañ ko dañ ko légaliser dañ ko dañ ko nangul kenn mhm. du pour loolu jigéen na seeti góor góor seeti jigéen sinon fii dañuy toog ba si yàgg après ci xar yi nañ jëm de ci xar yi nañ jëm da nga fi gis ku jënd xar bu jigéen guddi gi mu fa jabaram dem ci xar yi yéen a ngi wax góor jigéen rek mais après lool ñu jama kii euh, euh, homo animaux waxee benn verbe bu ñu ko benn mot bu ci xar yi nañ jëm ak ci bàyyi may parce que nag la wax dëgg dëgg yàlla tamit àdduna bi ay ay tierce de personne duñu tukkal suñu àdduna ñun tamit yontu yàlla noonu ba ñu ko xamee ne yenn affaire yàlla dafa dëpp àdduna boobu kon bu ñu dëpp suñu àdduna ci loo xam ne ay tierce de personne ñoo koy def amat ah, sama position loolu